tay ji amna lo xamanteni xamante dañ ci wara a offusqué wu mooy nga jël ay doomu adama yobul len rebeus avec une légèreté déconcertante ku ku ku yëngu dal dem rebeus rebeus dama ne tay ji sénégalais yëpp waroon nañu am lu len nakari te lolu té dama ci def appel au droit de l'hommiste gis nga lepp luñ mën di marche ci Sénégal japp na li li ñu war a marche loolu ci la bokk moy lutax sunu éducation doxul jarna marche de l'état de santé doxul jarna marche mais tay ji bo démé rebeus biram chambre 9 et 10 260 personnes lañ ci dajalé les gens dorment par intermittence ñi dañuy nelaw touti jog wéru ci miri ñi teud ñew teud nelaw deux toilettes 260 personnes deux toilettes À l'origine, Rebus devait recevoir 600 personnes. Aujourd'hui, officiellement alors, nous sommes après, ou bien au-delà de 2800 personnes. 600 personnes, nous sommes à 2800 personnes. Vous voyez que ce tant que à la dignité humaine en Afrique de façon globale, au Sénégal en particulier, il y a des barrières nous sont en train de sortir. Les gens doivent les faire à la main. Comment est-ce qu'on peut faire ça si on ne peut pas faire ça Mais assigné le à résidence mais ne ko bu mu génn mi ne ko mettre sa bop à la disposition nangul ay passeport am téye ko jël nit dugal ci kasso bi ba pare di xol ndax def nag deful pourtant Aliou Sall tuumal nañ ko de waye bàyyi nañ ko mu doxantu ba France ñëwaat gis nga ko barki dem muy présider ben finale départementale mais le constat est triste mais vrai amna ñoo xamanteni bañ leen tuumaalee ne def na dañ leen a woo téye dugal ci kaso ba pare doo ko xool ndax def nag ñoo ngi def def am na ñoo xam nag dañ ne appel à témoin mais li tax defaluñ ñëpp appel à témoin biñ ne Karim Mbodj sa Wade dafa sàcc xaalisu Sénégal li tax defuñu appel à témoin defuñu appel à témoin dañu jël denc ci kaso bi ñeneen ak ñeneen dañu jël denc ci kaso ba pare di wër wala sax ñu ne denc ci kaso ba pare sax ne la wax ñu li nga am noo ko amee <laughs> renverser la charge de la preuve <laughs> <laughs> Hein? Donc je pense que fondamentalement, la difficulté que nous avons aujourd'hui et que l'on doit corriger, c'est que nous régler définitivement la dignité humaine doomu aadama sëriñ bi da nga koy fonk da nga koy jox ak xam réew yëpp yi raw yëpp la ñu Moi mooy doomu aadama da nga koy jox ak toroxal et y a certaines pratiques yo ont da fay dégrader c'est dégradant Moi il ma la wax léegi Ben nek, ci rëbës nga def ci personnes mën nañoo bañ a def dara mais parce que ñun bokkuñu ci mais mais ku nekk mën na fa xëy suba dem ah. donc loolu tey kilifa diine yi droit de l'homiste yëpp dañoo war a taxaw ne lii day dakk li gën a métti mooy fu ñu doon denc ay fas du temps du colon ay fas lañ fa daan denc léegi ñu jël fa di denc ay doomu aadama te problème boobu lañu am fépp fi mu ne ni boo demee ba ci euh, au niveau de l'école de police mais le règlement intérieur bi régir école police date de Jean Collin donc tu comprends finalement pourquoi gars yi policiers yi am yenn rapport yi pourquoi bo gisee sénégalais yi bu ñu Sénégal rek buñu démé États-Unis wala France wala fenen do gis moko ko ñu ñibbis té photo wuñu ak policiers yi ci mbedd yi parce que da ngay romb policier bo xamanteni xeyna ma nga yanj ma nga taxaw ma nga am ben beaucoup d'humanité ma nga am beaucoup de d'humanisme hmm, nga taxaw photo ak mom fi mais fi c'est c'est c'est même pas un réflexe lan mot lol xeyna ci biir formation bi amna lu bari lu ñuy jëflanteeg ak ñom lo xamanteni yell na tay ji ñu changer waat texte yi ko donc les meilleurs d'entre nous seront les meilleurs réformateurs moy ñi nga xamanteni lañ fa fekk réformer nañu ko ba mu dëppoo ak jamono waye ba mu consacrer totalement la dignité humaine ñu ne dootuñu ko caaxaane parce que doomu adama dafa fort keroog loolu la wax euh, ki nga xamanteni mom mo yor ONAS bi mu ñëwé ci émission bob mané ko mais comment se fait-il que nous mi am am ku ci mais yow nga ñëw représenter représenter structure mais jébbaloo sax sa Ou wala personne n'est responsable comment se fait-il que demb Diop daanu huit personnes sont ci juróom nit mais personne n'est en prison personne n'a été interpellé donc personne n'a été ken deful dara mais sëriñ bi loolu bu fekkee ne foofu foofu la ñu toll mais problème am na